jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saasune su euh, ñu ngi fii ci parcelle Assainies unité unité ki ñu fi woon nag xale la boo xamante ne champion la ci làmb gaa kenn du leen ko présenté muy 2 Giga nekk xale boo xamante ne xale bu am jom la tàkkusaan bi mujjee bëre fële ci arène nationale ci diggante moom kaawu Gourdin gis ngeen keroog njàmbaar bi mu wane garmi bi mu wane fullaak fayda bi mu wane ba saa su ne rek wax naa lu baax dañ koy fësal ba ñi nga xamante ne tey ñoo yor ci réew mi wala ñoom lañ yàlla suñu borom baaxee yenn xéwal yi ñu koy mën di bokk ak jaamu yàlla yi Fall siyaar naa de mbaa yaa ngi am jàmm noo tudd. waaw man laa tudd. Aliou Mbër. Hmm. ah xoolal rek ancien mbër laa woon rek. Hmm. Mhm. daan nga bëre. waaw ah, daan naa bëre de. Hmm, ñaari combat nga def. ah toj naa daal. Hmm. waaw def ñaari combat. Ah, daal. sa combat bi nga bi nga bëre bi nga jàpp ni moo gën a rëy sa combat yaakaar na woon. waaw ah, kooku est-ce du mbëru parcelle bi. ah mbër bi fi nekk xanaa. waaw laale ngeen. waaw ah, xoolal rek Aliou garaaw loolu fan la waaw ah, loolu fii la woon tout droit bi ngay jàkkaar lool. du la laaj noo ko def dama lay laaj nu la daanee nan la la daanee. non da ngay laaj nan laa ko def. Hmm. waaw. noo defoon moo ah, daw jël tànk bi muy mboot rek ma rappel ko dëpp ko. lamb jeex. Eh, parcelle toj la xumboon na trop macha allah. lu tax nga bàyyi bëre. waaw sama papa moo ma aaye bëre. waaw moo tax ma bàyyi bëre. waaw hmm. mais amoon naa rek buy bëre tamit de. Hmm, muy monsieur maire waaw nga dëgg ndeysaan ndeysaan waaw moom la ñaanal ci bëre man kat ñaanalu moo tax ma bàyyi hmm. waaw hmm. mais expérience bi nga am ci bëre xam naa yaa ngi koy solde moom rek laa dese si àdduna bàyyi naa ñëpp hmm. waaw parcel benn mbër rek moo fi am moo nekk nii sama doom bi sarax maam yàlla. ci gëm sa bopp la bokk. wóor na sëñ Touba Mbacke moom rek moo fi des. Oh. barke sëñ Touba bàyyi naa ñëpp sama tuutànk yi sama doom la. kii day dem. barke sëriñ Touba. waaw moom rek moo fi des. jaajëf euh, kilifa noo tudd. landing. landing. landing yaa ngi yor bongo bi de est-ce que mën nga ci dara. da ko téye nii rek. non dama ci kii nii mooy loolu dama ci waaw mën naa ci dara shahru ramadan shahru ramadan weeru yàlla yàlla la waaw sëru ramadaan sëru ramadaan sëru ramadaan weeru ngërëm la waaw waaw sëru ramadaan sëru ramadaan soro ramadana weeru ngërëm la soro waaw lii la de waaw nga de ah. waaw noonu la demee temps mais mooy loolu dañuy xam rek dañuy dañuy dañuy dañuy jaayante dañuy góorgóorlu rek mais dara waaw jaayante rek waaw laa xàmmee damaa xamatul fan laa la ah, man de mooy loolu man moom saa moom sama grand la sama lépp la waaw dama doon yëngu si làmb mais dañ ma ko tere waaw ndax ndax de zikur damay zikuru laa damay sikar sikar moo tax ma bàyyi làmb waaw si la si la si soobu waaw ba keroog may waaw. noonu la demee nag mais saa moom dañ koy ñaanal rek waaw lu bëgg moom moo xam. waaw yàlla na ko yàlla defal lu mu bëgg barke bu weeru koor gi nii waaw incha allah. kilifa gi maa ngi lay ziar bu baax di la màgg. waaw eh, maa ngi lay delloo ziar sëñ bi tur bi Amdi Moustapha la Amdi Moustapha doomu nday Franc doomu nday Bulldozer doomu nday Deziga waaw mbaysaan international laa ko waaw si ñëpp nag moo tax ma am problème instant yi waaw. tey bis bi nga xamante ni teew na fi Deziga dajale fi mbooloo. waaw ah, Deziga moom maanaam parcelle amul frontière si moom quoi moom bañ na ko ba Deziga xale lañ koy woowee. man maa ngi nii maa ngi dëkk ba unité 12 mais dama wax émission bi dama déplacé wu ñëw uniquement pour moom dafa baax dafa yaru dafa def lépp macha allah yàlla na ko yàlla dafa lépp lu mu bëgg si làmb ji quoi ci barke Seexul Xadim franchement parler ba pare lu tax ma gën ko jàpp dafa am conseil quoi parce que day déglu Aliou te Aliou ku ko xam parce que xam na ne ancien mbër la Aliou daan na mbër yëpp ngay gis ni ay ñoom Issa Pouye ñoom Zil Balla la doon àndal di bëre ñoom Paata donc xam na si làmb dara te booy bi dafa jël lépp jox ko ko moo tax ñun tamit dañ koy jàppale ci lépp luñ mën ta am waaw te ñaan yàlla tamit autorité parcelle yëpp ñëw jàppaleel ñu ko macha allah booy bi yaru la ok. jërëjëf champion euh, may nuyuwaat bu baax a baax a baax. Euh, deux Ziga dajaloo bi tey woo nga mbooloo mi ngir berne ndax ku ci nekk xam na ne vraiment nit ku woor suba ba ngoon jot nga yëkkati benn tàndar ma jox ko kenn mënu laa nattal li ci nekk ci yiw lii bi mooy ñaata édition nga def ko ak ak nan la la dikkee tey ba nga xalaat initiative bi. dëgg la baa ji di nuyuwaat waa senegal di leen di leen siyaarewaat si Ramadan bi di leen baaluwaat ak si weeru koor gi ñu nekk lii jiitu na suñ judd fii nii ñu nekk nii ku xam café gi xam ne café gi yàgg na ñun dañoo ñëw fekk ko fi dañuy dañuy yëkkatiwaat rek relever waat défi bi loolu moo ñu looloo tax sax ñuy ñëw. nekk si nii nii nii mais boo gisee ñi siy jàpp sax di nga xam ne lii man kese moom moo ko keneen kese moom ko ñun ñëpp ñoo ko bokk waa koñ bi muy maire yeeg ñëpp gisoo soo xoolee maire bi mi ngi jënd ay kilo mburu yu bari plus de vingt kilo mburu ndax ñun chaque jour nii lañ koy dëkkee billaay walaay nekkul lu bees loo xam ne mi ngi doog am koñ bi ñun lii lañ bikkee ku ñëw dañ ñu fiy fekk waaw mu mel ni gis naa ne yaa ngi ànd ak say xarit say am di jàmm say ñaale sa ñëpp ñoo xamante ne ñii boo amee combat ñoom ñooy ànd ak yow eh, dem ci làmb ja tey nga am bis bu mel nii gis nga nee nga jiitu na sa judd mu doon initiative bu rafet bii mooy eh, ñaata yoon nga di ko woote yow woote bi nga xamante ni tey yow yaa ko woote bii mooy ñaata yoon. bii mooy première fois ñu woote. pour nit ñi ñëw xam ne secteur bi am nañ ay champion secteur bi am nañ ay sikarkat secteur bi am na lépp fii ñu ñu dëkk yàlla xam na ni am na lépp waaw moo tax ñu ñëw di ci woote waat di wax gars yi jàpp si affaire yi si côté yëpp gi ñëw ba nga laajte si ginnaaw yaa ngi dégg gars yi ne dañuy sikar kii mooy landing moom day sikar bàyyi laat mii tamit moom day sikar gars yi ay international lañ yàlla xam na loolu moo tax xam nga góor jàpp si góor la rek affaire yi noonu la waaw mu mel ni euh, tey gis nga li li fi nekk yëpp ci jumtukaay daa daanaka dafa laaj ay moyens moyens yooyu ngay def ci ci fan nga ko jëlee gars yi nan lañ ci taxaw. waaw ñu ñu siy jàppale mooy si ñu am di jàmm si ñu nit ñu dëkk si koñ bi yàlla xam na ni ñu si amul benn autorité bu si jàpp lépp lépp lépp amul benn autorité bu si jàpp mais waa koñ bi ñooy di seen dërëm ak seen i ñaar dërëm seen i ñett dërëm seen i ñeenti dërëm seen juróom yàlla xam na ni moom lañ ko defee billaay wallaay. te xolo waajaay bi sax yàggul dañoo xëy rek ne suba la ñuy def ndogu yi suba la noonu la demee yow démb laa la woo waaw moo tax. bi may woo fekk na ngeen jàpp ko ba noppi. instant yi lañ koy doog a jàpp man maa woo ku la ko waaw ñu waxtaan si lu yàgg yàgg yàgg après mu ne ma dina la woo affaire yooyu noonu te moom giroo maa ngi koy nuyuwaat fan yii yëpp bàyyiwuma ba mu amee combat léegi mu ngi ciy jàpp di ma woo naa ma mbër ñu def nii ñu def ne la xam nga góor jàpp si góor la. moo tax parcelle bii ñu dëkk ñun dañ ciy gis suñu boobu ñun dañoo jug ngir yëkkati drapeau parcelle mu dem ci kaw ndax gars yi dañ ñi siy pousse di ñu si jàppale si côté yëpp ñu siy demee nag si côté yëpp lu ñu mën ak lu ñu mënul ñu ngi ko siy def bu neexee suñu borom waaw. Euh, mu ñu dugg si waat tuuti ci làmb parce que dafa am lu ma jaaxal. mooy dañu jékki-jékki woon ne 2 Giga combat am taxaw na moom ak Cheikh Super Diamono ñu jékki-jékki gisaat combat boobu mu mel ni combat bu avorté nga jëlaat beneen adversaire lan moo waral yàqu-yàqu boobu ak adversaire bi nga jël. Sam moo tëggoon suñu combat man ak moom la 4 avril bi mu yàqu Sam moo tëggaat sama combat ba nii nii moom dégg naa muy naan moom maa delloo avance man bu ma delloo avance bi kay Sam du ma tëgg ba léegi Sam moom moo tëgg ba léegi man maa ngi avance Sam ba nu may wax ak nii Sam moo ma joxaat rëm moo tax ma bërëg rëm. may bëre Reug le trois juillet incha allah waaw. combat bi lan moo ko yàq parce que combat bu yàqoo am na lu tax mu yàq. soit yow nga ni bëggoo ko wala moom moom moo ne. daa jël ñaari avance sëñ Modou bu sëñ Modou ñaa ak bu avance Sam. mu bëree daanu. mu ne bëggu man sax bëggatuma ko loolu bu dul dara sax kenn bugg ko ma dem man damay avancer ku nekk da ngay ñaan yàlla avancer. kon bëri daanu ah. loolu mu def bëre daanu nga ko tuddee. xam nga rek moom da tuddeewu ko daanu parce que nee na jaay combat. waaw xanaa seetaanoo leen làmb ji. waaye baa ji li gars yi non na gën a yokk góorgóorlu xam ne làmb noonu la moom ndaw la affaire boo si nekkee nekk si boo si nekkee nekk si boo si nekkul nekk bu bu si bu si dugg waaw moo gën ngay lëtëri làmb amul lëtëri da nga ciy nekk rek nga nekk si waaw. sa diggante euh, Kaawu Gourdin lëtëri woo. lëtëri. Ah. yàlla xam na ni musuma si demee ba ba may dem làmb ja man maa naan maa yi daan par force yàlla xam na loolu. noo dama xam ni lu may entraîné ak lu ñu may daj ak lu ma xaw a xam si bëre même bu dul dara sax sax xam-xam bu ma nekk rek naa fa jëlee benn jël tànk lu bon bon bon bon sax xam-xam bu nekk rek naa fa mën a am benn dara yooyu noonu nga yor dara nga yor as tuut non man baa ji li gars yi damay bëre ñoom nii rek mais billaay walaay talaay maa ngi ñoom bokkuñu sax yàlla xam na loolu. jàngoro yëpp dañoo dajaloo nga jël City te City du wër rëm de moom City la moom. ey man maa sonal réew mi maay corona. <laughs> laay la la laa billaay walaay baajil gars ñoo war a bëree ñun dañoo toll ay ndaw lañ ñun ñëpp ay ndaw lañ ñun ay génération lañ kenn rawul sa morom am amaan na sax amoon na yeneen mbër yu yu yu ma waroon bëree ku dul rëm. mais noo xam ko moo tax ma jël ko. ban combat la mujjee bëre. moog la sandeer la mujjee bëre la. nu mu daane. non xaw ma nu mu daane. man foor lan mooy fooru rëm xam nga ko. non Badjili bu caaxaan jeexee ñun ñoo am lu ñu bëgg wane si làmb moom lu muy indi ak lu ñu dul indi ñun xooluñu loolu xam ñun lan la ñu xool lu ñu lu ñuy entraîné ak li ñuy daj di ko jaayante ngir am ndam loolu la ñu xool quoi mais xooluñu kon moom li muy mën ak lu mu dul mën waaw. ana père mi ngi fi mi ngi si jàmm bu baax a baax. di gën a jox yéen mbëri. ñun ñu warantiku dëkkal seen nopp ñu bàyyi wor wor baaxul fonk suñuy ñaari waajur waaw yooyu lañuy ñuy wax chaque jour ñu fonk suñu ñaari waajur yi ñuy demek suñu suñu suñu suñu bopp ko waaw baay yu bëree bëri nag faw ma jël ko faw ma faw ma jël ko ndax euh, moment bi may ñëw sama yaay maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar yaay booy gis naa sànq nga nga nga am geste yoo xamante ne yaa ngi ko def jënd ay mburu indi indiwaat nga ay Euh, teraanga defal ko gi lii lan la. xanaa di sant yàlla di sant Seydina Mouhamed di sant sañ tubaa bu wér di sant sañ Fallou ndax ñii dañuy sunuy doom mënoon nekk ci yeneen yàlla xiir leen ñu nekk ci lii kon nag du def lu dul jàppale leen ñox ñun dañuy liggéeyal sëñ Touba liggéeyal sëñ Touba rek moo nu tax a jóg wutuñu si giste te wutuñu si dara lu dul liggéeyal sañ Touba ak sañ Fallou. fii nag mooy ànd sëñ Fall xale yi am pësteef lool ma fa yéene ànd ak ñoom di ka dagaan sëñ Fall ba koor gi jeex wasalaam di leen ñaan ñaanal jàmm rek ca kaw ca kanam. jërëjëf yaay wasalaam na fi yàgg lool te wér. amiin amiin jërëjëf mën yàgg koo ànd ak xale yi. tam ñu yàgg fi lool kenn bañ a manqué ba lépp lu nu fas yéene defal seen waajur yi rek yàlla yombala leen kak sëñ Touba jërëjëf kontaan na jërëjëf. jërëjëf ndeysaan ñu dellu siwaat Adama. mu mel ni mbër moment bi may wax ak yow teraanga yee ngi ñëw benn par benn. nee naa la koñ bi ñun lii lañ dëkkee yàlla xam na ni ñun li ñuy añee suñu kër yi ak li ñuy reeree suñu kër yi bëriwul ñun ñii ñëpp ku si nekk sa kër morom ngay dem reere tey suba gannaaw suba feneen gannaaw suba feneen ñun loolu lañ dëkkee si koñ bi. on est ensemble ñun ñëpp benn lañ koñ bi benn stade moo fi am benn. koñ moo fi am fa la ñëpp di fréquenter muy ci terrain bi fa ñëpp di fréquenter ñëpp foofu lañuy ñuy amul fréquentation feneen feneen ak feneen moo tax ñëpp benn la moo loolay waral nag suñuy combat gars yi di si jàpp ñuy mobiliser ci côté yëpp mais dañuy woo autorité parcelles yi ñu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ngeen ñi tamit ay taalibe sëñ Fall lañ ñoom dañuy ñëw jàpp si affaire yi waaw noonu lay demee incha allah. mais dinaa ñëw ci sa combat yàgg rëm tuuti parce que faw ñu dellu si ci man dama dama dama waaru ci combat bi parce que ba ma jékki-jékkee gis affiche bi dama ne Sam est-ce que moom moo am idée wu boppam moonte combat wu rëm ak 2 Ziga mais 2 Ziga est-ce que bi ngay jël rëm say mbokk wax nga bu baax a baax a baax kan mooy rëm xam wax nga leen. waxtaan nañ ci suñuy staff muy père Birahim Ndiaye. père moom dara la jëlal mu ne ma jë mu waaw léegi gaaw ci ñeme ko mu ne ma ñeme nga ko me ne ko ñeme naa ko mu ne ma jëlal moo tax ma jël ko waaw tax to ay ndaw lañ buñ demee ba am li ñuy sikki sàkk jamono jii rek su suñu làmb rek noo jaratu ñuy tax ngeemu man sama làmb ñëwatuma di sikki sàkk su may ñëw day baax man day baax laa indi te bu neexee yàlla noonu lay demee sax ñooy def lépp waaw ñu séntu la sa diggante ak nga samp jaaga ngeen jàkkaarloo xeex yéen yàlla baax na yàlla nañu yàlla suturaal rek. bëgg nga ko. non koor nga lekk koor boobu loo ci jaan bu àgg. non lu munul la. waaw lu munul ñàkk la dañu dañuy bëre dóor la ñu wax. bëre dóor kay da dóor xeex bëre. waaw loolu la ñuy def. Hmm. rëm gauche la wala droite ban pied lay jiital. bu mu si bu mu si jiital rek. xam nga bi muy jiital man maa laaj ban. pied xam na ni bu mu jiital déranger wu ma. bu mu jiital rek boobu laa gën a mënee. fausse garde la wala garde normale. bu jiitee gauche. yow xam nga rëm. seetaan nga ay combat fausse garde la la wala garde normal. yàlla xam na ne xaw ma si fausse garde la wala garde normal xooluma si moom loolu xam nga man si lan laay xool ma ko écrasé nu ma ko agressé si làmb ji ba daan ko loolu rek laay wër wëru man leneen yàlla xam na loolu waaw. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax ndax xam naa ni li duuf ci nag bi xajandoowul ci. ci waaw waaw waaw baa ji yow tamit di la waat di la waat di la wax nii xam nga yow tamit da ciy jaax bu baax a baax di la ñaanal rek seen site bi moom yàlla na yokk jëm sa kanam di waat sama gaay yëpp nag gis nañ taxawaay bi gis nañ affaire yi niñ ciy jàppee bu baax a baax nee naa la affaire bi du man man mun naa tiim micro bi di wax mais yàlla xam ne lu nekk sama ginnaaw yëpp yëpp yëpp bu ma ko doon wax fii ba suba billaay duñ fi jóge dañuy nuyuwaat ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu waat ñi ciy jàpp ñëpp ñëpp kenn mënul ku lim juum mais dañuy lim ñëpp rek ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuñ kenn waa unité 13 bi ñu dëkk suñu gox bi ñëpp ñëpp ñu ngi leen di bëggewaat di woo di bëggewaat saraxi di waat saraxi VIP di leen wax ni combat bi seen combat la komba bi dañ ci bëgg a mobiliser lu amul fenn ñu ñëw agressé waa yi si biir géew bi daan ko waaw. jaajëf jaajëf baa jiili. jërëjëf mbokk yi 2 la woon gis ngeen li nga xamante ne xale mu ngi koy def woote ndogu. boole say nit say xarit say am di jàmm ñu dajale seen i fukki dërëm ak seeni i cent franc ngir lan teral màggal bis bi màggal weer wi ñoom ñëpp képp ku ci dugal fiftinam ba ci fukki dërëmam wala cent franc bi yàlla na la ko suñu borom fulal ba lépp loo ciy séentu yàlla defal la ci lu kawe sa njort di leen jaajëfalaat bu baax a baax mbokki di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah jërë ngeen def